dara su xaabiri saaru aji tey bakkaar matiyatu saaru matala billa alina ija juróom laa tey ni xam suñ juróom la wax naa juróom ñett bu kaa tey ci kaabe am yàlla am ni juróom yaar yoonu ci mën a ñëw ji daal jaal jana ñaay la fi nekk am na meñña meñña sama alxuraan mooy saaru ci daan yi ay dël lañu rafet ñu naar ñu faqaloo ñoom ñëpp gànd juróom yaare am yi juróom yaare am yi ñu mel ni ndam ci mbubb mbubb moo xam ne dañ ko dañ ko daane am juróom yaare lañ juróom pour gaal jàll rek yàlla dafa dindi dañu yaar ay juróom yaar yàlla ku bëgg juróom ñaar la yaara bi nekk jamono ak xarab barab mooy nekkuwaay bi jamono mooy di ko jëf di tàbbi barab mooy suuf suuf yi juróom yaar lañ jamono suuf yi juróom ñaari bés lañ moo tax jaanama itam juróom ñaari jéere la jaanama la saa saayar baqar jaxiim sama ya aljana yi nekk juróom ñaari at waaye yàlla ne foog mu gën jàmm da dolli ñu ne wax sama sama wu ziyaada moo tax aljana yi dolli ci dara jël juróom ñetteel daarul jalaal daarul xaraar daarul naayim jarab mawa jarab bu xunt janatu adni ñu juróom ñaari yi tëj firdaws ñu juróom ñett am ñu juróom ñaar lañ julli safara di juróom ñaar ci jàngaa am ñu juróom ñaar juróom ñaar yi julli safara yooyu doo julli julli benn amin amin allah yàlla ala maa yi xam di muraadi ñu ñaman bi jaanin moom it ci mbaa suñ baptaari la laa araw muraadi moo yëg ci juróom am na ñu ne alif laam ra amin ñun soo ko boolee mu di rahman waaye loolu yëpp li gën a yëg mooy laa araw muraadi ay moom lañu yàlla sànni ci téere bi rek kon jëriñ ci daal di wax rek alxuraan ñu ngi laaj ci gànnaaw yàlla de alxuraan bi de yàllaa ko wàcce wax yàlla na rek alxam bi ñu gënaa ji ba ci góoram alxam bi ñu gënaa ji xam ay mbindeefam ne saa bi gën bi yàlla na di aji bale ay bakkaar yàlla mi nga xam ne dana ba bakkaar ci kaw baaxam rek waxaat bi taw bi day aji nangu suuf ci dooleem te yéen xaalis kàddu mbugal la mu gis maa lool rek yàlla baal na la sa bàkkaar laa xam rek a tax nangu na la tuub ndax doyoon na la ko su kàddu mbugal la nag te loolu du doy ci moom maanu la ci moom soo ci mooy saxam ci biir ci jàmbur yàlla moom ci yéexal rek la soppandiku moo tax tool mën na ji di yéexal jaamam yàlla bu gëm yàlla di topp yàlla di def dundal mës nga mën yàlla su ko neexoon mu bugal ko sa kenn wax na daf dootoo waaye nag bi nga xamee ne moom sëriñ la te sëriñ bi bugal nit ku fa tool ñu xam ne di def loolu rek ci tool bi mooy borom ak tool daa yaa def mën koo jaamu di bëggee léegi gën na ci moom ak ilaa wala dara moom am na solo lool waaye dañu koy jënd moom rek maa ngi jaajëfal jaajëfal bi saa laaj bi alxuraan yàlla indi des na dara ñaañu ko trop rek ñoom ñoom ñoom makare ñoom makare ñoo dégg leneen bi warante ci rek yàlla bi. balaa yaa xam sax mu wax la ba xam ne moom ak parce que dafa di jaadu ci réew mi rek ba xam ne bii ba xam ne nag ñoom noonu yàlla yi ñu sabab di dund di ko am nekk ci seen jàmm loolu moom la wax mukk ba nga defee ndax yàlla daf leen a bëgg. sëriñ bi moo di safara la lépp loo xam ne mu jëm safara la loolu lu jàmm rek nag nga xam ne lépp loo xam ne ndax dee dem aljaana jëlee topp loolu dund ci bëri dafa ba dee dina xam ne mu jëm la gën a xaw ma nooy ku nooy wala saabu kuréel yi mbaa yi nga gën a dee en fait moo dee waaw ma tey de ci ñu ma dindi yéen fa xeet bu la doon ci jëlee ci jëlee yaa ko loolu ñu raay ko yeneen bi ci nekk ba ñu ñëwee xeetam ñu góorgóorloo mooy lañ dëgg ba rek yéen a dëgg yàlla wa jaada loo tay daal di baatin baatin ñu koy ko ñu ko ñu dindi bi ñu arab dëgg de te ñu baatin daay man dañu bëgg a samp aw xeet woo xam ne day njëkk a yàlla taxawal waaw xam suuf dama xalaat leen de bañ defee loolu ma xalaat leen ñoom xëy na yéen loolu yëpp nit ñi mooy nag ñu doon avec sama def. parce que daal ma day nekk ah xaalis ma xaalis mu yëpp maanaam dama tax ci katuwaayam te xaalis ka jam nañ xalaat ba ñu jëkk ña dañu war day yonent ya ak xam la war kalimaatu rabbika baal ci borom sa kii la am la am na jahannama am na jëf ñaa nekk fa la dinañ la am na naka ñoom asaabu ñebe wala mu soxla lañ nekk am na jëf ñaa nekk xam ne danañ ñu na alxar xaaral malaaka yàlla yi nga xam ne ñoom la yàlla ñaanu loo xarafan la boo man xaw la waa ñu nekk ci yoon sa doona danañu fa baal yaa ngi xam ne yéen ñu la mboo dafa borom seen wala ñu danañu gën di yàlla waaye sax doona dañu balu ñu ñu ñu am ñu ñu de malaaka yi nga xam ne ñoo ñaanu xaraf juróom ñetti fàq lañ yoo xam ne ñoo yéen a wala juróom ñetti junne ci malaayika wala juróom ñetti malaayika yoo xam ne yonent nee naa leen waxtaane ñoom ci ñoom nee na malaayika ci ñoom gannaaw mën naa naaw ci diggante naqam bi ak jile ba xam juróom ñaar ci junne ci weer te baa bi dëkkal napp ba xeetu boo ko waree ñoo ko xam ñaar fukki junne ñaar di jëfandikoo di gën a aar xalaat ñoom ñoo yan xaraf xaraf bi nga xam ne juróom benn téeméeri junne la ci ay lool yu bokkul malaaka ñaane subhaanaka wa bihamdika ala hamdika baara qudratika loolu la ñuy waa xaraf bi rek ci baat yoo xam ne ñu ngi asamaan ak suuf bu ñu ko déggee ba ñu ñaax ak baate ñu ngi malaaka yi nga xam ne ñoo leen waral ñu ngay sabal seen borom loolu ci itam ñu ngay balul yàlla képp ku gëm yàlla rek moo tax benn waa nii benn jaam noonu ko ñaanal ma yàlla mu ne ko gëmal yàlla rek bu ma gën a ngay ñaanal malaaka yaa ngi ñaanal képp ku gëm yàlla rek ñun rek ñu ngay balul ci nit ñi waaye tax doon dañuy balul li seen ñaan ñaan ñaan amoon gëm nañu rabbana ya borom suñu wateeka ëppale bu ne seen lépp lépp raamatu ci yermande waaye ma ci xam-xam yow yàlla téye maa ngi sa xam-xam ëpp na lépp lépp wax dëgg yàlla na la baal ñu ngi suñu ñaan ñaan kàddu gi ñu ngi ci kër yàlla képp koo xam ne tuub na fekk na yàlla bokkaale yàlla na ko baal de wa taxaw ko sax ba dina ko diine ko wax dëgg yàlla musal naa baal ak jëriñ wala jëriñ la yooyu yëpp malaaka ba ñaanal jullit ñi rabbana yow borom sunu waa kër yàlla nga xam ne leen janaate at nii aljanaay sax lépp yàlla nga xam ne waa kër yàlla nga leen ko rek waxum falaxa ak toog gën na mu ñu naa bàyyi ci bàyyi seen waa daal ñu naa ci jabar seen wajuri waa daal ñu naa ci jabar seen wajuri ak ñu ak ci doom seen ñu nekk naka yow ak nga yow alhamdulilah ñu nekk sa góor alhamdulilah ñu xarit ci sa jëf déedéet ma tax yéen ñu nekk laa yoo xelal jaam fu xarale ak jànna ba toog gis dafa yàlla maa jëkkoo woon yëpp mu ne yàlla ana sama jabar ah yàlla ne ko sa njaboot rek xaroon nañu aljana waaye nag mënuñu aw si fii nga nekk ndax defuñu woon jëm ci même nga doon jëf ah ñu ngi yàlla ba ma lay jaamu jaamu la it sama bopp Aliou bi sama njaboot taxoon de yàlla na waxal dëgg yéen ñëpp sa jabaram sama wàll yi ñu dugg ma tey dara sama kat yi ñun ñun dëgg rek nañ ko def ñu ngi ko ay jabaram ñu ngi ko jabar ci ma xaamaam jëkkër jëf bi toppal ñu ngi jënd toppal jëkkër jëf daal ñu ne la samay doom ñu ne ah kay doom jëf ñu jëf ñu ne xëjëf mu ne yàlla ba ma lay jaamu sama bopp ak sama doom taxoon de yàlla mu wax ne que jëf leen koy doomam. ana sama baay ah sa baay dafa doon lu mel ni la def sama bopp taxoon ak sama baay ñu ngi ko baayam de képp ku mu xam ay xaritam ak mbokkam képp ku mu xam rek bu ko laaj yéen ñu ko koy indi de moo tax yéen ñu ne bëri leen ay xarit waaye ci ñoom yàlla balaa seen kaw daal ñoo ne. jërëjëf danañ am lu ñu jëlee boo am lu ñu jëlee boo xam ne kuñ laaj rek waaye ñu daal di la teewal moo tax foofu boo boobaa bari xarit yoo xam ne jaamu yàlla yu ñu dañu waaye dana fa am njëriñ la dina dana ko am dara ak yu waaj na ko sa wala ak yu waaj ka lay gis a jëkkër waxtu yi jaan na nga musal leen sa yaay di ndiwal wa man sax ni ku nga musal ko sa yaay di ndiwal loolu ci defal ko te tey sa yàlla waaw xam naa ne rek nga ko def ba taal ka léeg-léeg moom moom alfawzu moom di taxe alaaka bi rek ñu mag a def keroog waaw loolu rek mooy taxe mujj ci mbugal dugg aljanna loolu rek mooy moo di taxe rek moo tax balaa gën a xam ku gën kenn ba ba jaam bi jaaree foofu de ku mucc ci safara dem aljanna waaw kooku moom nit ku tedd la rek waaye ku fekk xéewal ak aljanna dem safara kooku ko torox rek ñun ñu ne la gën a naka ñaanal ko fa wet nañu naa daw na def na xool leen ca wàllu malaaka naa leen la max laay meram yàlla ci yéen nag ak baru moo gën a màgg min max ci gum ci na seen am ci sëg maay bopp seen xéewal bu duggee safara dafay meraat mere mere mere boppam te ci la ñuy baax ko sama bëgg dana fa bëgg ngir mer ndax yéen yéen a ma doon ko yéen a ma doon jafe di tax ma dugg ci safara mere xaritam mere kum la fa xam su ko defee ñoo ko ne ko eh mer mi ngay mer yëpp mer ma la yàlla doon mere moo ko rawoon ci ci rawoon ba def naa waroon te àdduna bi dañuy naan jëm ci gëm yàlla fa tax da ngeen di wetti da ngeen di wax gëm ngeen yàlla ngeen cëpp boobu day na yàlla mere woon moo raw day ngeen mere seen bopp rek ah loolu ñu wax moom ñu safara ñu lay ñaan ñaan bi xam njëriñ rabbana yow borom sunu amatana rey nga nu ci jëkkëri ñaari yoon yow yàlla léegi nag rey nga ñu ñaari yoon nekkoon nañu saxante man yi di ñu gannaaw bi nga dundal ñu dellu ñu rey yaari jaayoo waaye danaa dundal ñu ci jëkkëri ñaari yoon nga dundal ñu bañ nekkoon saxante man yi gannaaw bi nga dellu ñu dakkal gannaaw bi ñu dee nga xam ne dee nañu yaari yoon dund nañu yaari yoon wax dëgg naa dund nañu dund nañu dinaa ci bàkkaar bi léegi nag dund nañu nangu nañu lépp loo waaw wax nañu ñoo ko def ci bàkkaar rek ñoo ko def waaw li nga xam ne ndax dégg nga yoon nag il a xam ne liñ ci gën a gën a safara voilà nangu nañ nag di nga xanaa dañuy gën a safara bi. bu dee sax di dugg moom itam dugal daan na woon saa su nekk nii mbiram jub ndax doy ya ndem ci def na daaw yàlla wax dëgg yàlla ñu ay yéen dafa tudd ngeen weddi ko buñ wax ak ay rek ngeen weddi ko dal way sax ngeen bokkaale nag biir ci moom yooyu noonu ngeen dëggal suñ sàkkale yàlla bokkaale ngeen toll nii loolu dëgg parce que mu xatte tey ci gën a dugal Illaahi ñaan na yàlla alaali kada aji kawe ji neefam alkabir kada aji màgg rek buñ ko tuddee ci moom tuuti rek woo moom la fi mooy bunt nga xam ne yuri ci ngënam wal nan aayaat yi teg li ñettal wayu nag dina dana wàcc la tuñu yàlla ñoo sama ci ko jaa sama riskan wërsëg wa may ko sakkalu waaru ji ndaw man ñu nii ndare ka dana mu jàll jëm ci boromam de fatoo jaamu leen la yàlla mu lu gën a nit ñëw di way sellam la wajal ko dina ak topp de wala ko yaa ndee kit na ko al kaafiruna way weddi na de gëm leen yàlla ko topp yàlla bu naqaree bëri yëpp bu la neexee yëpp yéen def leen loolu rasuma darajaat yàlla mooy aji yëkkati ko daraja moo xam ne nawayu kawe wala rasuma darajaat yàlla mooy aji yëkkati daraja ci sofa loolu arc mooy borom xaraf yàlla moom xaraf moo ko bind ñëpp ci gën a mu sànni roo wayu ba ñu naan rëy ci gën waxam ala ne daaw ci soo fi ne daal di jaam ñu sura ñu nam raga dayo ba talaak ci dayo ba ci kay ko yàlla ne yow moom ci tangam bari ko na way gën a dëgg ci seen seen bànneel laa yaakaar ne bu gaawaay ci yàlla lu ci ñoom tey dara rek waat leen ak jëfam daje ba rek seen jëm yàlla mooy fi nga xam ne mooy jëfam yooyu nit ñi tooñ ñu suuf ñëpp su tooñ ak kam doon tooñ su doon jaamu ak kam doon jaamu ñëpp dañoo ci benn xar ñëpp jàkkaarloo rek yow moom def ba ñoom baari doon way gën lañu laa yaakaar ne bu ci xalaay ci yàlla lu ci ñoom tey dara rek ñëpp teew ci kanam yàlla ak seen i jëf nag dara na buur ci lii naa ka ñaaw ñee balen banañ ko sax waaye jàkkal lay yàlla fekk yaa ngi am benn ñaaw def rek li man ñaal kan al mulku góor al yow ma kay yàlla ne ana kana moom nguur kay rek jag ngeen ma tudd ay buur suy na yàlla rek ngeen ne buur buur saalum buur kii buur kajoor buur jolof fay nag ana ban góor fay benn buur amuñu rek sant sant boo déggee wax daal sànq ñu naan kott waaw moom nga dégg de mu tontu boppam ne lillaay ñu naan yàlla alwaay di gën kenn alxaar te daal di natt jaamam de tey de nguur ñu naan yàlla rek ki nga xam ne kenn la te moom ak jaami rek ak yow ma koy gis gaa la def na koy ku dina dundal bakkan ñu naan ko sabab jëlam tàggoo de tey nag bakkan ku nekk lépp lu mu mës a tàggoo dem ñu la dem ay danañ ko ko fay rek laa bu ma dee nag tooñ ak yow da ci fay tey kenn tooñ kenn duñ wàññi di kenn di wax ñaar benn kenn la ñu laa naka yàlla période bi saa yu gaaw bi saa la mu ne mbir yëpp dina leen saa dina ko leen ko dara ci jiw ba di bëgg wa anzirum ragal loo leen yow ma la fi fekk bés benn waa la jaam ba ragal loo leen déggal yàlla bi nga xam ne dana ñëw de ci danañ ko yow mu la fi fekk waaw ci jire ak jegeñ ndax jege na de ndax lépp lu ñu dikk dikk na ba noppi ñu xulóom ba xol ya la ko xanaa biyaa gi nekk la fa profé rek wala ba nga xam ne jaam yëpp jàq ba ku ne saqal benn ba tolloog sa kuro saa bu ñu nit ñi way fees ak jàqale bu nekk ni jàqa jàqa jàqa jàqa jàqa saqale ne ci di nga defal ci bëccëg malika ñu ñu ñu ñu wala mi naan ñu aji xarit wala sa ñu biyaa yéen am la muy kaa aji la muy kaa nga jëma sa bëgg rek wala nga ñu fër ñu am xarit ñu am aji ramu yoo xam ne daan ko topp jaramam ma rek ku dee ji ñëw ñoom waaw xarit dana ram xaritam ram itam junne junne ñoom daañu ramoon nga def junne nga njëkk ramu ramu mu wéy ma nga xam ne ram moo ramu yonent bi ram moo alamaa yi ram way tey yi ram yu gëm yàlla te ñun ram sax mbir ñoom itam di ramu def yàlla mu dana mu xam moom bu wóor ah yow de laa yëngu pour ñu bëgg yàlla xam na lépp lépp jëfi jaam xataa pour ci bëgg sax pour nit yàlla nga ragal ko wa maa toog tuuti ak yeneen nëbb ko fi góor a xoree rek ak lépp loo xam ne yaa ngi ko nëbb ñu ko xol kenn xamu ko lu may yow rek loolu yàlla moom xam na ko rek wallaahi yàlla yàq bi dana mu àtte bi àtte ci dëgg wala mu ne ñaaña taxawoon da ngeen jaamu leen yéen a yëfal màkk ñu ngi ñu ngi moom laa dana àtte ci ci ci dara yàlla moom dina àtte ba àtte dëgg lay àtte waaye keroog bi nga xam ne ñun makkal koy waxee ne ay yàlla lañu tuuti leen di àtte keroog de ñu laa ne ko yàlla wóor moom comme ni mu daal di dégg seen wax ak dëgg mu aji xam seen i jëf de xaw la ñëpp ñu wóor ndax dañoo doxul ci dara ci suuf dañu ko dañ see soo ko tànn naka nag gànnaaw ko bëgg leen ñu jël ñaane daal ne ko ñu ñu xam ñu ci njëkk seen ma xanaa ko ñu jigéen ñu bari te teelu xanaa dañoo mës a dox ci àddina bi ba ñu jël ci seen jëkkee nga xam ne ñu leen xalagoon te seen jënd yaa ngi def ba tey daanu ne ko ñu moo ñoom ak sa bëgg gën a tab ñun ci ñoom dañu ne xale kon doole ku watam ci kattan waaye daal ak jëriñ bi la ci tuude ñeel ne kon kattan kenn ku ci nekk daana ma téeméeri xasab ci seen xasab ku gàtt juróom benn ku ci xasab ci seen xasab ñoom ñooñu ku ci mer di di di dajee garab yi sànni ñu naag ñu ci yokk doole yàlla saa suñu doole ñeel ne kon jeexe bi ñu jeexe dal ci suuf ci ay sa loxo ci njëmbat waaw xasamu laa te xalaat na leen yàlla du ñu ñu ci bàkkaate te ñoom itam ñu woon yàlla yàlla xalaat na leen ana ñu ana Namrood ibnu Kanaan ak Nasar ana Sibaat ana Firaana wa maa kaana nekkul loolu ñu dem ne laaj yàlla ñu waat naa ji mu tëdd ba pare yàlla xalagee amul kenn ku ma dox seen diggante mu gën na waaye bi solo yaa noonu ci naka ñoom kaanam nekkoon na saa ñu di dikkandeel ko sunu ay yéen seen di dee naa di ci kaw de ba tabaroo dañ yàlla de baaxa loolu laa taxara yoon yàlla ñu yow nag moom góor xawu ñun aji dëgër la mu sabina xawi kat bi wala mu ko fa moy rek wala xalaata naa ñu dëgg ñu Musa Musa daa dina ma ànd ak kàddu ñu juróom yoon ci su bana la ñu juróom daa ji yàlla yéen ñu na yéen yàlla Musa jox ko juróom yoon ci kàddu ak la yu gis mooy taw rek yaa dara ñu jël ko raana wa amana amana jaraafam wa xaaroona xaaroona rek mbëri jam na ñu raa yow dafa wax nañu kenn du leen dara ba xaaroo ko yaa ñu Musa ne waaye ñun ca la ñu tàggat bi ñu naan akam la tooyoo ñu ne Moussa dafay nar rek yàlla yëngu ko ak jabar la rek wala maa jaa aw mbagu di kale yéen daa ko jënd ak la ñu ne naa ko tëjee ñun xaaral yu waaw loo rey leen am naa la gën a doomu góor ñaa ñaa am lu gëm nañu maa ànd ak moom wax saa yoo defal leen ñu saa am ak jigéen benn amul saa de gannaaw la ne ma delloo bañ saa rek ci sama bañoo doomu góor gi jigéen bi rey leen rek doomu góor gi jigéen bi ngeen bàyyi ko ñu ne ko suñu jaam au moins daal ñu koy dina ñu fexe mooy la dina ila bi balaa ñu daal ñu ne ko ci xalka rek waaye fexe ñu ko xalaat rek waqaala ko wax dara ñu dara naa ne zaro ni bay leen ma ak ma ray Moussa Moussa dara ma bare ma ma ray Moussa kenn jàpp ko kat te tuddee ak dama day liggéey kenn xayoo ko kenn doxul diggante ne Moussa mun a bare ma ma ray Moussa mun a ko dee dee dee dee wala yàlla na ma woo rabbo boromam na woo yàlla am jabaab ba xam ne ci man duñu yàlla ka man axaafu dana ma ragal ani badira bu mu wasa dina bu mu jéexeel man ragal naa ne Moussa bi balaa jëkki soppi ci yooyu suuf si li ma sama yàlla yi doon jaamu man ma yàlla ji màgg Moussa ma gën a dindi loolu dama koy rey waaye mi firaag bu mu teel nag si la ci suuf si mi dawal safara yàq Moussa dafa bëgg a yàq suuf si mi sa gis nga ku yàlla wàcce dafay liggéey noonu muy yàq mu di yàq mu dee réeral de Moussa li muy woote mooy réeral Firawna moom loolu la gis mu dee ak yàq rek saana moom fi nekk moo di wax loolu la gis nañu ne dafay yëngu saana la ñuy gis luy perte di perte nañu sama yëf dañoo suñu naxal parce que am naa sa loolu nag waxaara ka wax Muusa Muusa te dëgg ñu sa tub sa am wax ñu ne ka man wax ci mukk lu man rabbi ci borom sama wa rabbi ci ma borom seen ñu ko lu ko tabbirin ci jëpp aji réeru daa yow ñu ko gëm ci wujjee ñu daa ci bisal isaab Muusa ne man nit ñaa rek ci sama borom ci dëgg ci tax aji réew waxaara ka wax aji réew waaye moom ñu ngi daal di dem ne ali faraama ci ñu faraama benn waaye boo xam ne dafa gëmoon ñu daa dañu ko nëbb te doomu bay sax ni saana la ñu ne nit ñu dëkk bi ñu ne xamoon moom la yonente wax naan ci jokkoor yi ñett lañu ab ñu ma jaar moom ñu ma ca yaasin ak samoon ñu ne moom ñu ne ali saana saana ci ñu saana benn waaye boo xam ne dafa gëm ñu sax dañu ko nëbb te doomu bay sax ni saana la ñu ne nit ñu dëkk bi ñu ne xamoon moom la yonente wax naan ci jokkoon ñu ñett lañu ab ñu ma jaar moom ñu ma sa yaasin ak samoon ñu ne moom ñu ma ali saana abubakar sadiq ma leen ñetteel samoon moo ci gën kooku daal di wax ne waa joo xam ne doomu bay tax la ci saana ñëwoon na Muusa te di ko nëpp ba saana ne man danaa rey Muusa moo jóg taxaw rek ne ko da ngeen rey waa joo xam ne waxul lu ma yàllaay sama borom léegi dina kaay jël bu fekk léegi sa góoram te moom su ma ree loolu moom boppam lay lor su waxee dëgg nag wan yéen mbugal dana wàcc ci yéen laaj nañu yenn borom benn borom xam-xam yi nga yeneen saaba yeneen dafa laaj la la bu ko naa toog yaa ngi mu ne benn waaye nga rek ci benn jotaay ci jotaay bi raw naa mu wax attaque la rajo yi yàqal rajo yi laa yàlla daal di ko ci dugg alxuraan yi ñu ko jàng ba faat yeneen saam boobu ñu doon far biñ di dem googu ak ca ba war ñu xataab ba ci jaar seen gannaaw laay di jàng yàlla ci makka di ko nëpp bu laaj nit laajal ay ànd doom ñi nga xam ne yàlla jàng na leen ñoo jot jamono yeneen bi te dëggal ko ànd ak moom ñooñu kenn dootu leen jot ba faat yeneen yeneen bi ma ne sallallahu alayhi wa sallam su ñu leewoon jamono yi wuru sax di jotteen mu gis de di jotteen saa wala ñu gis saa suñ dund la ñoom rek yeneen gën ci xel yi yeneen bi ma ne ñu gën ci xeetam moo di maasam mooy saa ba kat maas ga leen topp mooy saa bi ne kat maas ga leen topp de mooy saa bi ne saa bi ne wax na feneen sama xeet ñu ngi mel ni kaw amuñ jël jël yi ak nit ñi jël wax na ne jël bi sama xeer mooy ñu dëkk yi ak ñu nit ñi ci diggante yi ndax ndax ji waaye dara boole ci ñu dem yaa xaw yéen sama lakk ñu ànd leen ak mut bi ñu wóor ak yow ma tey bàyyi na nit ñi ngeen di way not di lakk ci biir ñu fra moom waaye dama wax ba tey mu ngi yow Faraana waa ko nit ñi ñëpp sant bi léegi nag yéen a am seen muur yéen a moom Misra waaye sama nekk naa ana ci beneen bi njëriñ la ci daara ci digalam yàlla ñu jaar naa leen di ko noonu waaye su ngeen rawee wax ñu yàlla bi nag digalam yàlla ñëwee ana fu ñu dimbale xaala wax garaaw ni garaaw na naa wut ci dindi ma leen laa ma araa wala la ma dindi rek ñu ne leen man ngaa wax naa ko ba noppi dindi naa leen li ma leen di dindi mooy rek mu faar rek comme ah bii moom ñu bëri ma leen di daal parce que yow daal di daal yow dañuy xanaa dafa leen ñëwaat ñu fi njëkk ndënd gërëm ci suuf bi wala yow daal di daal daal di daal yow daal di gis dërëm ak lool waxuma leen dara lu may waxee rek mu faa te bu leen jàng lu may waxaat sama kër gi rek ba xaaral sa nga jiw waaye nga xam ne ah man de gëm na mu yaa xam ne eh eh sama ñu yéen a sama akaafu dina ma ragal alay bi di jéem ñu koy wax daal di waaye kenn du ci jéem de ragal naa ñu ne rajo yi yàlla yi dégg dégg yow yàlla ñu leen jëkkoon loolu dana ñëw ci yéen de mu nga dana wàcc ci yéen de daal di ko gëri li sa daal di xaw di mooy dafa xam ne ci noonu waaw dina ñaar ba sama ba sama la loolu dina ñaan ñun daal di woy nekk lañ ci gànnaar teel de comment laaw lépp moom laaw lépp wóor ñu ngi ci gën a mën a mën ñu mën a tooñ dina daal di ci jàng de yàlla bëgg tooñ de waaye xam nga eh justement li ñu naka man axaas na ma ragal naa ne jëm jëm yow mat naa ci jëfe wootam jëfe de ragal naa ci yéen jëfe ci jëf yàlla ba ma xamee ñu lay woy ñëpp eh yéen nañu aljanna eh yéen nañu sabara eh yéen nañu saxe eh yéen nañu saxaadi eh yéen nañu alquran ragal naa booba dugg loolu ci wàllu kese dañuy dëkk mu dëgg dañuy leen di woy dëgg maanaam suñu benn benn benn laaj bi wala yàlla ñu naan suñu naan ci terrain bu ma nuyu lii laa woo na ko yàlla damaa la woon suñu ñaar ko ñu aar naa ci jubal wala xam jaar ci kaw na leen yow ci yow ci xam jënd ci te yow ci fa ak yow ci la ci dëkk Moussa ñu yow ci fa doomu Yaqoob la ki nga xam ne day woon waaye loolu yële de li nga mooy yow ci fa doomu Afraasim waa doomu yow ci fa ñu yow ci fa ñu doon doomu Afraasim Afraasim mooy Ibrahima ci kan la kooku nag ci daal beneen doom bi ñu yëngu ko kooku nag mooy yeneen bi bi ñu jaam rek ñu béy naa di ci mën daal sama sama bi ñu bañ leen di fàtte di tudd ñu naa jaar suñu keneen ci kenn mu leen di di kenn mu leen di ci moom après ça alaka ba alaka ñu yëngu fa te suñu yan ba lam yan ba laaw ñoom ci yàlla ñu baal ñu ci gannaaw rasoon ak yeneen bi de ngeen ne yàlla ñu leen kenn gannaaw yëngu la ñu yàgg ñu kooku ko tam yëngu mu jëkk la de dafa rek kam googu lay réeral waaw léeg-léeg loolu la yàlla man loolu tam moom mos defoon aji barka la mu saabu aji si kër mu nekk si nga lëjël ak dina ñaaña di jaadu ne la danañu dajee sa di daaj alquran yàlla ji nga kaay du kaay du dul aw lay abaaw woon ci kan nangu leen ak rama gana ab dajee seen naq sam ci mbugal naq sam ci nare ma laay fa yàlla de waaye na dina ak fa ñaaña amanoo gëm ñu de ka taalika gëm gëm la réeral nga faaw laaw léegi nga xam yàlla ala kulli xamdir mutakabbirin ci biir képp xoolal aji réew jabbaari ci aji mbaru de wa qaala fa asrahu fir'auna yaa Haamaana yow Haamaana ñu ko waxal ni ñaan ma salaam salaam kaw bu daal di kawe de salaam nguru de ñu ne ko tabaxal ma nguru laa di jëm ca asamaan ñu tabaxal ko nguru laa xam ne kawe la ci kaw lu man ñetti kilomètre comme que tabaxee ba mat di di la taxal ko romb ko rek riis ba mbagam nii mu dem ñett dal benn ba daanu ca biir kër benn ba daanu ca dëkk ba alal alal leer waaw benn ba daanu foofa xam nga mënu la taxaw rek dara ma jot a am ban lañ la bëggoon parce que bu ko lay yëg mu ne la am yaa tax nga man am na ku ma jot la subaa wa yoon ya ak baa ba sama waat yi yoon asamaan la ñu ne yëg ci ñu loolu nag danaa ko gis kare yi jëm ci asamaan ma jaar ci kare nag ba kare yoon dama yor loolu ilaa ilaa ay Moussa jëm ci yàlla ay Moussa jëlee su ko defee ma yëg waa dem ci yàlla ay Moussa jëlee ñu ne man laa ma dana ma jot Moussa kat dana ma dina waaye li mu wax ne yàlla ji man am na sax defe naa ne dafay nar rek waaw waaye moom yàlla la dafa di ko dem boobu la réeral ñu na dara fetal rek di garaaw na ñaar garaaw na soo amal yi ñaawal jëfam de wa sadda tam set ani ka bi ñu wari yoon ñu wa ma kay garaaw na jëf taxaw garaaw na ila fi tabab ndax dina ko ci perte la wa xala ka wax li wax nga xam ne amana gëm ñu yaa xaw ma yéen sama ci kàddu yoon topp leen ma adi ko ma jubal leen kàddu dara kàddu yoon jub de yaa xaw ma yéen sama naa adi haa dina naka doo dund ak àddina ma taawam yóbbal la li ñu yóbbaloo rek fan yu néew topp mu jaar way na laaxira naka laaxira yéen moom daal xaraari mooy kër sax waaye maanaam nga ko jël mu sëy ak ñaaw téef sala yi saari fay fay lam daa nga rek am ba maanaam nga ko jël mu saali an jëf jigéen ñu nga kër ci dara woon góor la awoon saari ko jigéen o wata moom moom aji dëgg la mu o laay ka ñëw la gaaye yàlla xoloo dama ñu xaram aljana da aljana ñu saxoona leen war sa leen da aji aljana bi xay yi taal yi jiwir am lim de ayyuhu shaytan rajim بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وسائر العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن يشهد بيننا وبين بلغ سليم من لدن الغريب. maari yaa la man adama ko may xaw leen di leen jaati jëm ci nit ki lu tax ma di leen woo ci yéen musal ci bugal wasaare da ngeen di xaw yéen di leen ngeen jëm safara yéen ma di leen woo ci yàlla waa xam ne loolu leen di musal ngeen jëm di ma woo ci safara te mooy kéefal adama ni da ngeen xaw ma yaa ci safara ngeen ma weddi di laaj ci yàlla woo ci ka sama bokkaale bi moom maa lay xali da jégg ñu ma bi ci ñu xam-xam de waa na man adama kum dana ma xaw leen di leen xaw ci jëm ci àjjana jëm ci wuram al xafaari jël wa di ba am ay alxafaari gëdaa ñu day bàkkaat ñëw ci suuf de laa jarama dëgg na maa xamoon ni naka la da ngeen xaw ma ñu jëm ci moom léegi soo ko def ñu ko daawatu ak ñun ci dunya ak jawaab dina wala daa ko jaay daa la akara de te de ngeen bëgg ma jaamu ko man duma ko jaamu ndax bu booy xool li ak yàgg dina dund ñu ngi ci àdduna dina ngi ci àllaaxira de wa anna maraddana naka delluwaay suñu di delluwaay yëm na ci yàlla de wa anna mujrimiina naka way àdduna um ñoo asaabu réer ñoo waroon safara de su ko tëkk woon xam ngeen fat li ci ngeen janoo mbugal maa ko yéen ñu wax la ñu ñu soo xamee ne seen jëm yàlla ñëw na da ngeen janoo mbugalam safara da ngeen fat li ci ko wax yi ma leen di wax de daa na dal di ko tëkk ne ko dinaa la rey ñu génn dem ci xale ba dem ci aw dëkk waaw di fa jaamu yàlla rek mais boo ko wéedu dana ma jaayal am réew mbir sama di leen doxalee jëm ci yàlla rek dina laa naka yàlla parce que dina la xam ne moom bi la bàyyi di jaamu de mun na man jaay naa samay mbir jëm ci yàlla dañ ko ko dañ koy rey rek ba wax waaw laa ko musal ko yàlla te yaati ma makaroo way ñu awee la ñu sa xaroon rek rey gañ sa xaroon ba ñu ko waree yàlla musal ko ñu rek Firawna daal di yebal ay soldaaram rek ak seen i danga ñu leen dem leen fi ñun te fekk rek ñu dee ñu ñëw fekk seen kii kii mu ngay jaamu yàlla ñu ñëw ba jub ko rek dañuy dox seen diggante moom rek waaw di wér rek ñoom ñu ne bët daw waaw moo tax bay ñooñu baax itam képp ku tëkk nga wax ko rek waaw yàlla dama dox sa diggante kële tëkk di oo bi am réew laa laa ba suñu bila daal yéen si na moos waaw ku nekk ci jàq te waxu laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dëgg bi la ci yàlla teg parce que jot naa la wane ak ginnaaw la xam ne la ci yàlla teg ak koo xam ne waaw dëkk nañ ko ne ko say noonu ñu ñëw waaw kaas la yow sa waxu naas ñu laa wane ma la tuuri te dëgg na la ci yàlla teg fan xale boobu ne ma suñu laa faj ñu ne ngeen suñu tool waaw ak koo xam ne ay noonu mu ngi koy fexeel bëgg ko rey sa waxu yow foofu ba am réew la laa la suñu bi la daal yàlla ko teg ne waxu laa ko yaati na ma ko de waaw naaru safara ñoo la doon def na lakkale woon ala ja safara de ñoom noon yooyu nag daañu leen lakk ci safara bu alaxira ku diwoon ci lële waa yéen ak ci ngoon ku ci dee rek waaw yéesal bu xasee dee dañuy def ñu ko yóbbu ko safara di ko lakk ba nit ñu génne ko wacc ko ba ngoon ñu yóbbu ko di ko lakkati ba jant fa ñu wow ñu génne ko rek wacc ko ba sugan noonu la ñuy def duñ génne duñ ci safara figaatee duñ ci gënte jaamu dañ leen di lakk bu mbugal ndaa ngoon rek tey day wayoo ma taxaw wu def dina taxaw saatu ba seen ci nag daañu wax ne waa dëkkiloo xarta leen ala salaw na ñoom salaw na ashadda al azabi dañ jot a mbugal soo xamee ne seen seen yàlla ñoom nag dañu àtte jaamu ñu ne yóbbu leen salaw na nag waa ko safara sa gën a tàng rek ci jàngatal jota jona bëgg nañu xulu ci meeri ji safara suufar yi nag way toppe ña ak sang yéen doon topp taa wala ngeen ci yoonu ji ñooy xulu ci biir safara faya xulu ta wax boo faa way door ña mooy ña doon toppe dina ci ña ña i takk réew réew nañu di naa naka ñun ku naa ne kon nanu tabaan di way topp lakkum ci yéen xam ngeen ne ñun ko duy ñoon dara ci yéen lañ toppoon rek faal antum ndax yéen mux noona way jëñan yan xam naa ci nim nasi wanat cét mine naari gi safara xanaa kon kay tey yéen ñi nga xam ne ñun ngeen doon ci ñun ji xanaa da ngeen ñu tegal lëf ci safara si xaala wax allazina nga xam ne istakbaru réy nañu ne innaa naka ñun kullum képp ci ñu nag yéen yaa way naka lañ ci safara rek dina laa naka yàlla xat xattamaat nañu dañu ne baat bi gën di jaami de eh bu la ñuy tànqal ñoom yéen a am rek ñun ñëpp ci safara la ñu nekk yàlla xatte na ba noppi la waa amatu fi rek ñooñu dem aljanna dem nañu aljanna ba noppi ñun nag ñoom ñoo nekk ci safara si de waxaala wax allah si ne ñaane si naari way nekk lañ ci safara di xaseen ci jaanama ñeel bëkk nañ ci jaanama udoo ñaan leen rabbakum borom seen yu xaf suuf mu woyofal xanaa walif ni yow man kenn bés bi mais ah saabu ci mbugal mi rek ñoom yéefa yéen ñaa yow yéen bëkk nañ safara yi yéen malaaka yi waaye ñaan leen yàlla mu woyofal ñu mbugal ñu benn bés rek ñu noppalu ko daañu wax loolu ko junni at ci xati alaaxira xaaral ñu wax ñu soog leen tontu ne leen awalam takk ndax nekkutoon saatikum dikka leen rusulukum ay yonent seen bil bayinaati ci mujisaat ndax xanaa yonent yi waa duñ yéen woon te wan leen ay kaate xaaral ñu ne bale aan aan ñun ko yonent yi waa doon nañu dañ leen a wedde woon xaaral ñu wax ñu malaaka woon fa dama ñaan leen seen bopp war na ñaan leen seen bopp ñun duñu ramu yéefar wama daawul kaafiriina yàlla daal di sant ne wama daawul kaafiriina waaye déet ñaan ak yéefar ilaa fidlaahum dara ci ñàkk waaye yéefar moom su ma ñaanee du ma ko may ci dinaan ko nin dana firu dana nu dimbale rusulanaa ay yonent suñu boole si naa ñaaña amano dam nuñu filaa di dundee di dundee wàddina wa yawma laquuhu yàquuhu ak bés ba dana taxaw la saa di seede rek yawma laa yanfa'u bés ba jëriñ ci si saa ñu na wala weddi ñu maa si rek ñu la ngant seen de ñu ngant lu gant lu yàlla du leen nangu de wala mu war na ci ñoom daana du seen ngërma de wala mu war na ci ñoom ak soowu daari mu jëg kat gëri dëgg waaw mu jëg waaw wala ñaa ñaa war na ci ñoom soowu daari gën jëtta ci mbugal de te mooy safara wala xalaatee naa ñun day jox nanu Muusa Muusa alhudaa tawreet yàlla joxoon na Muusa tawreet wa awras naa tan jox bani Israayila bani Israayila alkitaaba tawreet gannaawam gannaaw boo xamee ne Muusa jóg na fi bani Israayila doon na ko ci moom bu def mbir ñu aji jibe leen wa sikraata di waat nuuni la ngaabu ñeel waram tamit sell tasbir mu ñeel wa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna waada laahi naka doxal ak yàlla ci dimbale ay xajjam xaqun aji dëggale de sa yow ci nga bokk de wastaqir bari li dëndike ci bakkaar sa ndax ñu mën laa topp wastabi sabaalal bi am rabbi ke mbir ñu waaji lambal jëm teg borom sa bi asi yi ci lëlëg walib caare bi asi yi ci ngoon walib caare ci bari inna la si naka ñooñe yu jaaji doona danañu xuru ci ayat la jaal quran yàlla di xayri sultaan gindi lay attaaw wow di kenn mu leen suñ suuf bu réy ñu di nekk ci xol seen ilaaj ci lim lay réy de réy li rek a tax ñu bañ topp yonent bi yaakaar na yàgg yàgg mën nañoo def taxe mu tax ñu féete yonent bi kaw te loolu duñ ko am mukk maam ngeen ñoom di baale ko ñu di way jotam duñu am mukk li ñuy yaakaar de parce que muslim di seen waaye billaay ci yàlla yi ne sama moom sama moom di dégg seen wax albarki ni mooy yi xam seen mbidde la xalqu samaawaati bañ ne ku dee yàlla di ko mën a dekkal yàlla ne la xalqu samaawaati bindeg asamaan ni juróom yaar wala rek suñu juróom yaar ak bëri moo gën a màgg ñun xalqu naa si bindee ñu ñu yoonu ñaareel de xam ngeen ne daal ñu asamaan ak suuf ak lim lamboo ci sos loolu dekkal ku dee safu ko rek wala ki ngeen si nekk ak solo naa si gën ju bëri yi fay ñoom laa la mën a xamuñ loolu wama yastawi hemooti lama aji weddi wal basirow aji xam aji jëfe wal basirow aji gëm koo xam ne dafa yéefar di silmaxa ak koo xam ne dafa gëm yàlla di jëf ñooñu ñu réewuñ de dila wala si na ñaaña amano gëm nañu wa amilo tañ jëf saalihaati farata yak naafile wala mu si di jaagan aji weddi ak kuy def jëf ju baax ak kuy def jëf ju bon ñooñu ñaar ñu réewuñ de qalilan waat bi daa ji néew maa ngi fas yéene waat bi seen rek dina saata naka des penc la aat yéen dina aji dikk lañu laa rey ba dee tukki fi aji penc bi yàlla laa ci nekk nag seen naa si ñun ñun de bëri nañu laa yéen ñu ngi dem si ñu rek wa qaala wax na rabbukum borom seen ne ud'uuni ñaan leen ma rek ngir ma nangul lakum ñaan leen rek yàlla nee na ñaan leen ma ma nangul leen rek otooni jaamu leen ma astajib lakum ma yool leen de jaamu leen ma ma yool leen ñaan leen ma ma wuyu leen de xeeti yeneen ci ñoo jagoo yàlla may na leen digal ñoom ñëpp nangul lakum ñaan leen de yàlla na ne ñaan leen ma ma nangul leen de otooni jaamu leen ma astajib lakum ma yool leen de jaamu leen ma ma yool leen ñaan leen ma moo wuyu leen de xeeti yeneen ci ñoo jagoo yàlla may na leen digal ñoom ñëpp su ci ne sañ naa ñaan yàlla xeeti jëkk ye ba amaa soxla la ñëw ci yeneen bi rek ne ko ñaanoon yàlla ñun nag ku nekk ñun sañ naa ñaan yàlla te yàlla dig nañu ne buñ ko ñaanee danañu nangul dana la jox jëmm li nga ñaan wala mu yëkkatil la balaa wala mu jox la leneen mu jëm li nga doon ñaan loo xam ne soo ko xamoon woon ngay ñaan wala mu denc la ko ba alaxira mu ne mu ne lii la ala denc loon waaye ñaan moom du ñàkk a nangu mukk im ne la si naka ñaan yo tak birona gën a wéréy loone baaga ci wéni fekk jaamu sama dox leen xam ñoo xalaw jaam na ma jaamo daa xëy na nit ñu ndee torox de ñu réy doo ñaan yàlla na safara lañ jëm laa yàlla dasi moo góor bi nga xam ne jaam la bind nañu lakum ñaan leen lay la guddi ñu fas ci moom na nga noppalu bi ci moom la wana haratam def ba cëg gis tëral mooy aji gis loo ina laa naka yàlla na soo xam ne borom ngeen laa naa fi ci nit ñi wala ci nag si nekk ak sala naa fi gën ko bëri nit ñi laa si nga xam ci ñu daali kum kooku ne seen laaw mooy yàlla rabbukum koy borom seen xaaliqu kulli shay'in yàlla muy aji bind lépp la laa ilaha de bur boo jaamu ci dëgg ilaahu wa dara moom saa ne too fakkoona moo naka def toppee leen wali sa jaamoo ànd ak taxaw ak lay kasaalika kenn soppeef ñu ne ñu fukk la dee si soppee ala si dañu aña kaana nekkoon nañu dañ sa dañu di weddi daa si laa ci kaw yàlla de allahu yàlla la fi mooy boobu bi nga xam ne jaan la bind nañu lakk ñu leen lan la suuf xaraaram ñu soxwaay yàlla leen bindal suuf si mu nekk seen soxwaay wa samaa tam bind asamaan binaan mu dim ci moo leen tabaxal asamaan mu leen mu tiim leen nee ni sa lollam néeg moo xam ne yaa ngi ko tabax mu tiim leen wa sawarakum tam bind leen fa ahsana tam rafetal suwarakum bind ay melo seen di bind leen yéen doomu aadama ci melo yi gën a rafet waa xaw bàyyi may dañuy tax taxaw ak ñaan ci tànk jiital seen bopp waa xaw di lekkal seeni gémmiñ waa yàlla bind doomu aadama moom waaw bind bu rafet bi ñu ko bind waaw muy taxaw ak ñaari tànkam waaw ay ciiram benn ci diggante wut ak morom ma wa razaqakum dam wërsëgal leen ñoo tey baat ci tey mu jox leen ñam yi tey gannaaw boo xam ne bàyyi nañu far ci ñax mi rek lañ nekk waaw doomu aadama moom ñaxam ma gën a dawati fokk mu nekk njaxas yu bëri mu soog ko lekk te doomu aadama meññet rek lay dund waaw du lekk mukk ay xob waaw ay meññet waaw meññet yi yàlla bind rek da leen yàlla leexal leen saalikum kooku ni fiin laaw mooy yàlla rabbukum koy borom seen parce que daanaka bëri na wu laa yàlla rabbul alamin sa aji moom bi léegi de woo moom alhayu mooy aji dund mooy dund dund boo xam ne ak ñàkk mos koo jiite ak ñàkk di ko mos di mukk waaw ku dul yàlla mas ngaa ñàkk waaw ko nga xam li nga xam ne itam yaa ngi séentu ak ñàkk ci di ñëw koo naa am li ci diggante ni ñu ngi mel nekkut yàlla nag moo mas di dund dund boo xam ne waaw ak njël yéenam ak ñàkk musu ko jiitu ak ñu jëm ñàkk di ko xéeg kon nag moom rek kay dund laa ilaa di di boo jaamu ci dëgg laa woon dara moom fa doo wéete leen ko jaamu muxlisina bi ñu leen di way sale loo ñoon ko dina topp alhamdu xaal cet yonante billaahi ñu ànd yàlla rabbil alamin sa ñu di léegi kul waxal indi naka man ñu hiitu tereef na ma ana abu da muma jaamuwaat ala sina ñaaña ta doona da ngeen jaamu ko yéen min doon laay lu yàlla wax leen ne man tere nañ ma ma jaamu xërëm lama jaani ba dikkal yoma al baynaati saati yi tegtale yi ko yàlla de ñu rabbi ci këru borom sama woo ma ci digal yëf na ma an uslima bu ma jëbbalee di rabbil alamin ñeel aji moom jëmbi léegi de boo moom buur alla si moo buur bi nga xam ne xalaxa gum bind na mu leen min turabin ngeen di ko gisuuf ndax aadama seen baay ko gisuuf lañ ko bindoon moom min katin topp bu bind leen yéen ngeen tigi ci ndoxam man yi dana la xatin topp ngeen tigi ci limbi wax ri gisin topp dana mu jóge leen ci seen lim yéen di ndaw su ma yi tablu ko topp na ngeen jot ak si dëkkum ak dëër seen gannaaw bi nga dund ba yoo xam baa nag ñett fukki at wala ñeneen fukk su ma li tàkkoo ma topp ngeen nekk si yoo xam ni màggat gannaaw bi nga màggat waaw mooy dara ci juróom benn fukk wa min kum aji naa kala ci yéen a seen ma ngi ko faa te def na faat ko min xam li doy dëkk am na ñoo xam ne balaa ñoo màggat dee te diggante yoo waaw wala tam la ko ak na ngeen dund ba jot ak yeneen bis mi sama mbi muy dayal de waaye ku nekk ci yéen daal dana dund ba àgg ci dawam rek wala lakum ak boo yéen fàqule na ngeen sant xeeram boo moom alla fi moo bur bi nga xam ne yéen dana mu dundal wa yéen tamit rey te saqa bandemaat na mu am rana wala mbit te dama yàqoonu naka dana mu wax loolu ñeel ko ku nekkal te yàqoonu te moom dana mu nekk de alam tara ndax gisulee bi la lefi jëm ci ñaane yu jaaju noonu danañu xuloo ci ayaati laa ci alquran yàlla ji am na gis rafoona naka dee si fattee dañu gis dem am na si nañu ana tege boo wet nañu li kitaabu ji alquran ba bi ma arsal naa ak keneen yéen bi ci moom rusul naa ay yéen ngi sunu ba soo fa yàlla mu naqal nañu xam de kañ ci lax laalu ba gax ya ya anaat yi ma aju nekk la ci loo seen de ba nga xamee ne seen nañ leen ñoom ñëpp ba gax leen waaw xaj ko ci seen loo seen wa salaasilu call la aju nekk la ci tànk seen de dañ ko xasal ngir ak banam de waaw bu ñu gax seen loxo xeew ko takk ko ci doq yi waaw def aj call la ci seen tànk de yu sagoon a def na diri leen ci daan ni ci jaanama ñu di leen xëccëg seen yooyu nag leen wat jëme jaanama de kenn ku ci nekk bu yàlla nekk soowu waaw faatu doo waaw juróom-ñaar fukk dina ci malaaka ñoo koy jëfante ku nekk ci ci malaaka dana fa teye ñu wat jëme ji safara rek ñu ci neer topp ja safara di coroon de na taaleen de ñu taaleen ja safara sa de su ma xëyee topp waxee loolu ñaa leen ay na maa kuntum ana la ngeen nekkoon ci ko di bokkaale ñu ngi lay yàlla ana la ngeen doon jaamu na sa diim yàlla xaaloo ñu wax ne ballu fàddu na ñu xam naa walif ñu ñu ne jëkk seen dara ñu ne dëgg dëgg ñun jaamu ñu woon dara buur ne kasaari ko kam yooyu leen naar ñu laa lay réere la yàlla alkaas na wéy di dara zalikum loolu seen ñaa ko lu jara ngeen nekkoon tafraxu na di dëgg ci la rëgisu ba xaari xàq ci lu ñu dëgg ñu leen doon dégg ndég moo xam ne du ndégam dëgg boo bi ma kuntum ak ci saa si la ngeen nekkoon tam raxoo na da ngeen faataayu de mooy dégg ba dégg ma xëpp nag da ngeen daa dégg ci àdduna waaye fa xam ne di dégg leen woon ci dëgg waaye di dégg bay faataayu léegi nag kay gaa ngi udd xuroo xalaw leen ab waa ba jaanama bunti jaanama xaalis dina jëm ngeen di wéggee si yaatu bi. ba bii sax bon na masalu mutakabbirina sax waaye way rëy la ñu de mooy jaanama de parce que mu ñëwal dina waatoo laay naka dayoo la yàlla xamal aji dëgg la tey maanaam yaa naka dem wan nan la baax dana si leen laala na ngeen doon dana mu delloo leen ko jumtugal boo gis ma naka noonu la de aw na taxaw fa yaa naka ittanu faat la tey it jamono def na delloo leen yéen a jëm ci ñun de wala xadaar fan naa ñun de yéen a rusula yéen a ngi mën xam ne si biir jëkk ñun mu aji naka la ci ñoom man xasas naa ñu ne solo xale ko ci yow wa ñun mu aji naka la ci ñoom man la naqsu ñu ne solo solowut na lay ko ci yow de mu ne solo nañ ne juróom ñetti junne la yàlla yónni ñeenti junne yi ci bani Israël ñeenti junne yi ci mboolem nit ñi waaw loolu la suyet yi doon daw naa sëriñ ba wax na ko ca saaru xaasri dafa wéetut moo tax waaw mu dañ toli ca waaw li wéet mooy mboolem yonent yi lambiyaaw murtali na alfaka xadim lañ jun téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak ñenenti junne waaw rusulu yi waaw ñetti téeméer lañu ak fukk ak ñett wala ñetti téeméer ak fukk ak ñenent wala ñetti téeméer ak fukk ak juróom waaw ñooy rusulu yi waaw mboole seen nag waaw ñooy yonent yàlla yi rek wa maa kaana nekkut li rasul ñaan ku yónni an yaati ak mu di ceeb gayaati kaatee ilaa bi isnillaahi la rek ndigalal yàlla de ndax jaami moom lañ ay saa jaa dem dikk na amrullaahi ndigalal yàlla ko bi yaateer seen diggante seen diggante way weet yee biraaq ci dëgg wa xasirata perte hunaalika foofale al mubtiloona way baati ñi rek allahu yàlla la fii mooy buur bi nga xam ne jaala bind na mu lakk ñee leen la maama juddikat yi jëlëmam nag ak bay xar di tarka boo ngën na ngeen waar minaa ci ñoom am na ci yoo xam ne ngeen leen di waar mooy jëlëm yi ko minaa ci ñoom tàkk la ngeen am na ci yoo xam ne da ngeen leen di lekk laa wax de wala ku ñeen leen fi aa ci judi kët manaa si waaye njëriñ mooy sooma ak doom ya waa ak waba maak soo sële wali sab la ko ak ngeen na ngeen jot xale yaa ci moom xaaja san xaaja ci su doorikum yi nekk ci xol seen de ak bu ngeen bëggee sëf yóbbu ci réew yu sori yi bàyyi may ngeen koy sëf de waale aa ci ñoom bàyyi may waaral fulki ak ci gaal yi géej gi suuf ma doon la def waral leen bu ngeen dikki de way riikum dana moom leen aati yi kaafeefam waaye aati laay ana kan ci kaafeefi yàlla suñ ci woon ngeen di weddi de afalam yasiroo ndax dañoo doxut ci lan la gisu fayen soo tañ seet fa kaan na kay nekk ak def def ñu bëgg ñaan ñu xam do ñu ci def dem kaanu nekkoon nañu ak sara di gën ja bari ñu ci ñoom waa sa def tay gën ja fab ku watan ci kattan waa saaran ak ci jëy ci lan la gisu ma wax naa waaye jëñalu anam ci ñoom maakaanu lañ nekkoon njëkk ci woon di faggu rek dañ doon faggu jëñalu leen bugale yàlla moom ba mu diggee de fala ma jaatum ba dikkalee leen rusulum ay yonent seen di baynaati ci mujisaat fari woo ñu jëg ñoom yéefar ya bi maa xeen ndawum la nekk fa ñoom mais xel ni ci xam-xam de waaye ji ci yonent ya am di leen weddi de waxaa ko sa wàcc diim ci ñoom maakaanu lañ nekkoon njëkk ci ji ci ñu fala ma raaw ba ñu janoo ne baa sanaa mbugal sunu xaaral ñu wax ne amoon naa gëm nañu bilaay ci yàlla wax de woon bi mu aji wéet far naa weddi nanu naa ko naa ci lañ nekkoon musikin bi ay bokkaale bi ci moom fala mu yàkku nekk ci jëm fa moom di jëriñ leen imaan ñu gëm seen dama raaw ba ñu janoo ba ko naa mbugal ci de bu mbugal xasee wàcc ku gëm yi dootu jëriñ sunnatullaahi mooy baaxal yàlla way jëkk ñun lëti waa baax ba nga xam ne sab xalat jiitu woon na mu seen baat yi ci jaamam wa xasira perte na mu naa li ko foofale alkaafiroon way weddi ña de